mbokk mi yow mi doon am jaaxle ci wàllum grillage yu baax mu jaral la nga jóge Sénégal dem ba bitim réew jàppale sa coono jeex na tàkk ak SFE agro business dafay ñëw ànd ak yéen garanti leen ay produit am ba nopp fu waay mën a nekk ci biir Sénégal ñu livré la ko yow mi nga xam ne yaa nekk Ndakaaru wooteel ci 77 541 34 13 wala ca Tiwaawoon nga woote ci 77 632 01 57 bu dee ca Diourbel 77 069 79. 59 62 Casamance 77 871 39 82 ci garantie bi nag li ci gën a neex ay grillage yu dëgër te ci mën na dund ci diiru fanweer jàpp juróom fukki at kon bu leen ko kenn nettali daw si leen gaaw ànd ak SFE agro business seen njariñ rek que loolu mais Tapha Tine bi Tapha Tine tey sawar na de pël. la war a def. moom ñeme na sa waay ah bawol baa ngay seere la ba. ay mbër nii lañ war mel. mbër yu nar a dem nii lañ war a mel. ay mbër yu nar a dem nii lañ war mel. mbër yu nar a dem nag moom yaa mel mbër bu naree dem nii la war mel day koppale raag ba pare bëre. Tapha Tine ñoom dong la am lii bu ko beneen booy defoon lamb ji yàqu na mais tey ay professionnel ñooy bëree tey ay professionnel ay bëree waaw buñ paree baalante àq saafonte jëlal ma loolu ndeysaan bis bu mag la la ilaha illallah leer bi daa mel ne ñëw na ay waay dégg loolu tey dem na ci lamb bi démb ndeysaan la ba may nekk xale toog di oh, seetaan maa ngi mel toog suñu kër di sol sirip di seetaan oh. jël ceeb teg ci sama wet oh. di tibb mak di tibb dànku ceeb mi kii kan la oh sama yaram daw na way bi bi ko déggee doxal oh. pël mu doxal ba déggal loolu pël yow bi de pël bi nga déggee wi lu la def lamb ma def rek fàttali ma lamb rek yow waaw lu eh, eh, ma loolu maire bi nee na ngeen bàyyi yaaba ji ñi waaw ñii moom yaaba wuñ moom lambi jigéen sax jeex na waaye nee naa def nañ avant premier. avant premier def nañ première course. ñu xool deuxième bi lan lay doon. première course dina neexam dina naqari. non bii dina waaye li ma gis est-ce que dafa mel ne lamb ji arbitre sifflé. ah, ah. bii dina ah dina doy waar. waaw waaw El Hadj nee na ah, dana doy waar pour loo wax. ndeysaan koo matu. waaw man woy bi su ma ko déggee sama xel ci meen yaa yaa xaar ma jaaga. xaar mbay na yàlla guddal fanam. tey stade bi rafet na nag séppal. macha allah kay la ay tooge ko nu ne. waa leen xamal naa la ko de. waaw waaw. tarkindaa bi. Ah. moom la arène bi di muslu. may profité di gërëm sama xarit ba abo sañ-sañ. waaw di profité di gërëm borom géej gi. hop bu baax. barke yonent bi tey ji neex na. maa la wax loolu. ay waa lamb tey wax na. barke yonent barke yonent def na ko yu yi wax. yi. géwél yi xoolal maye ba seen xol sedd ñu ne barke yonent barke yonent bi moom wuure wa dem na këng waxi mag dem nañ taal. lu waay doon jaay. tey mu lamb bu yàggee mu doon fëgg jaay. waaw ñax bokkul. bu ko weddi des na tuuti buñ bi ne gëree ku ne xam kuy salaat bi. mais tey ama seen xam-xam rek ko war mais Tapha xeex bu am joona ko war maa la wax loolu Tapha Tine intérêt mooy xeex mais pël waaw jeex na une minute de silence loolu mooy une minute de silence ku de silence yaay yaaw jàll ah yaay yaaw jàll yaay yaaw jàll a wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm mi ngi ñëw rek bu kee ko dëkkam moog wulli moog wulli wulli mais yàlla na ko yàlla yërëm yërëm ñëpp fa fekk ñëpp ak ñoom Cheikh Kane ah, ak ak ak tonnerre numéro 2 ndeysaan ama nag ko faral daa nekk seen xol déggal bawal bawal yi bawal bawal daanee dina bëri ñu daanu oh. ay ca arbi ku nekk ngi boot sa cumbikaay non lamb ji du yàgg ndeysaan dernier combat de la soirée muy grand combat diggante Eumeu Sène làmb ji du yàgg. arbitre sifflé na. Paul lu ma la waxoon làmb ji du yàgg. làmb ji du yàgg. dañuy nattante foofu doole dañuy nattante. ama na song ko jox ko loxo bi di xaar droite bi jug tafatin droite bi jug na rek mooy ama dugg na ko ama daa mën lii de la wax loolu tafatin na nga ko rek téye waaw waaw waaw waaw na boobu ama bañaat na boobu. Tapha Tine moo ñu féetee ginnaaw oh, ñoom ñaar sonante nañ maa ngi téye rek ak garde bi taaw ñii gaw ma ñu xeex ama si tànk yi la jëm maa wax loolu a si tànk yi la jëm pël ñii maa dinañ xeex non dinañ xeex lii xeex la mais lii xeex bi ku calculé wul da ngay ñàkk parce que tànk waaw kenn ku ne da ngaa fermé gis nga ko Tapha damm na boobu dóor góos waaw waaw damm loxo bi góor góos waaw waaw waaw waaw waaw waaw am na ama miina na ama wu tabaatin tabaatin ama. ama seen tabaatin ama. ama jël na ku ama seen. waxoon naa la ko waxoon naa la ko. waaye ndaama lii. waxoon naa la ko. Tapha day dem Ardo. Tapha day dem Ardo. Tapha dem na Ardo. dama la waxoon. dama la waxoon. Tapha dem na. dama la waxoon. ndaama lii yóbbu na Tapha Ardo. ñëwoon naa la Tapha da koo ñemee ba mu ëpp. Tapha da koo ñemee ba mu ëpp. ne naa la Pikine bu dekkee si jafe-jafe booy bi bu génnee day def jaloore maa ngi la ko doon wax. moytul ma kenn du lamb xayaan bi kenn du moom. kenn du xeex bi. xeexu Tapha dafa yéex. Tapha dem na ardo si Tapha xeex Tapha Tine xeex bee yéex maa la ko wax. ngay mujjee wax na Tapha a nooy ci mbëri ami war naa dem ardo jàkkaarloog ama seen est xam nga ni seen premier round bi seen accrochage bu njëkk ci la ko ama seen nat Eumeu Sène na ko ba xam Tapha Tine ñeme ak lu mu ñemewut. ndax mbër boo ko ñamul doo xam la muy sax. kii dafay dégg quoi. waaw. non ko piécé la xam ne lii mënu koo sonal ndax kaawoo woon ko maa wax loolu moo garaaw. arbitre baa ngi waaj a soufflé waat soufflé waat na lii laay bañ Tapha bañ loolu. bañal mu natt fi na ni da lay kaw rek dóor si kaw waaw ndax Eumeu balaa dóor day natt gis nga ko xam na ni ñor na hop hop hop hop léegi na jëlal ma loolu. yow la làmb. ndaysaan. yow la làmb lii non fii law la làmb xaju fi ñoom la mbëri ñoo fi xaj pël wallaay ndaysaan. njaa njool ma jaaxle na. làmb wax loolu non waxoon naa ko. newoon naa la la mën naa laaw mu dal. yow doo magum xamoon naa ko magum loolu mooy yoon loolu nga def mooy yoon mais waroo muy rayé góos bi nga koy bàyyi moom yàgg na guddi loxo yow boo gëmee xeex bi léegi mu jeex maa la wax loolu. te Ama dafa am fit da lay songu. xoolal xoolal dalu ko parce que daa ñeme ku waaw day xool ku gis nga ko da koy nax danaan xaas mu jël ko nag dëj ko. hop hop hop Tapha Tine bàyyi xeex bi te bëree moom Tapha tële woo hop hop ma am seen surtout Samba Xoyaan bi ndaanaan la tolul ni mbëri mais mi ngi def ay jéego oh sama xarit ba kontaan na Aba Aba Baye Fall. Momo Momo Baye Fall kenn du moom borom sax mbaaw ma profité di ko gërëm pël moo la war a jox jasineer ba. abo ah. kan la ñuy def momo momo. bu ëmb daanee ñaanal waaw waaw. ñëwal waaye dañuy waaw ñaan taxul mu daan ki war daan yàlla xam na ko ay waay Samba oh ëmb tooñ na ko ëmb tooñ na ko ëmb tooñ na ko ëmb tooñ na ko ëmb tooñ na ko ëmb daan na ko. Diop Go Diop Faar. Faar mooy lan. am ma ñàkk na. non Faar fi. fii moom am ma ñàkk na. kay ñàkk na ca premier ba. oh am ma ñàkk amee mooy fam kaawoo Tapha. am ma ñàkk ama gaa yaa ngi fa hop ama ñàkk na combat ama ñàkk na combat bi ñàkk na combat bi parce que kee léppam fes tegu tànk ama bi daa gudd ama ñàkk na combat bi wallaay ama ñaa ama ñàkk jël feeñ na waaw waaw xam nga ñàkk na. Tapha Tine daal na Eumeu Sène Tapha Tine daal na Eumeu Sène ay waay Pikine waay ñu ngay fair play ñu ngay fair play ndeysaan ñu ngi fair play ñaari mbëri loolu nice na